asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di siyaare mboolem képp koo xam yaa ngi topp suñu site bi di 94 Walfu euh, Sénégal seen analyse chronique ci réew ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar nañ leen way leen di topp fal 94 Walfu Sénégal seen actualité actualité bi nga xam ne nag moo gën a nekk ci réseaux sociaux yi muy waxi Cheikh Yérim Seck yi waaw bin bin biin bi rek voilà ak Ousmane Sonko xam naa ne tamit ngeen déglu message bu am solo bi nga xam ne ni wax na ko ngir senes bi ngir xale yi toog leen ci seen dëkk defar ko wax na dëkk yi nga xam ne sax naam am na ñoo xam daan nañ immigré tudd na fu mel ne itali ak Chine wala naam am na ñoo xam daan nañ immigré mais ñu ëpp ci réew ma ñoo toog defar réew ma. kon yaakaar naa ni message bi pour jeunesse bi yépp la te képp koo xam ne nag euh, danga am euh, site internet wala da nga am seen YouTube wala TikTok war ngay mën a lancer message bi pour nit ñëpp bàyyi ko xel ndax jeunes yi Ousmane Sonko bàyyi nañ ko xel bu baax a baax lu n'importe lu mu wax rek am na lu tax mu wax ko kon toog leen ci dëkk bi ñu defar sunu dëkk buñ ko defaree incha allahu rabbi dañuy dellu siwaat suñu réew ñu ànd bokk nday bokk bàyyi di xàccandoo di dóorandoo bu ko defee nag voilà yeneen étranger yi di ñëw di immigré fii di dagg ay séjour ñu toog suñu réew macha allah ndax kenn ku ci nekk boo sañoon toog sa réew di amee lépp sa réew kan message bi dañ leen koy digtal ngeen déglu ko après ñu jàll ci Cheikh Yérim jeunes yi des fii ci réew mi immigration clandestine de solution dem ci géej gi di fa ñàkk seen bakkan jaru ko nañu toog ci réew mi jeunes yi des fii ci réew mi nañu bàyyi voilà euh, dégg ngeen ko noonu euh, muy Ousmane Sonko mu sell mi comme ni ko ñëpp di waxee rek euh, message bu am solo boobu nga xam ne lancé na ko jëmale ko ci jeunesse bi jëmale ko ci jeunes yi nañ bàyyi ndox mi niy jël waaw immigration clandestin dafa metti désert yi ngay jaar wala gis ngeen image yi wala frontières yi ngay jéggi wala ndox mi ngay jaar yooyu yëpp ay risque la mais xam nga loolu yëpp ñu koy def buñ koy def rek dañoo dem ba sës loolu moo tax voilà mais nag Ousmane Sonko laasane message bi xëy na man naa am daneen dégg message bi bu leen fàtte ne zircon gaz matière yooyu nga xam ne nii dafa baax ci am réew day développé am réew da koy am na fi bu leen ko fàtte yéen ñi nga xam ne ngi ci diaspora bu leen fàtte ni seen réew am na pétrole am na gaz am na zircon yéen ñi nga xam ne yéen bëgg dem tamit bu leen fàtte ne réew mi am na zircon am na gaz am na pétrole am na matière yooyu nga xam ne nii dafay suqali am réew kan bàyyi leen ci xel voilà euh, bu ko defee ñu dem ci Cheikh Yérim Cheikh Yérim Seck gis nga jamono chaque jour rek saa su nekk Euh, dafay dénoncer ñi nga xam ne ni dañoo lëndëm voilà parce que yow xamewul ne woon lii ngay wax ni ci yeneen i wax nga daan wax bindal ni ñi voilà du bind say livre lu la neex nga def voilà tey nag gis na ngay wax ay bin voilà xam naa ne arab yi moom bu ñu la tekki leen ngay wax moom la jël si arab yi voilà parce que du bin yàgg nga dégg ñu naan bun Abdallah Jonn sax ah bun Abdal Muttalib voilà loolu sax xam nañ ko waaye bin voilà te xam naa ne lii répété nga ko répété répété répété xam naa daal ne leen ngeen déglu ko après ji ñëwaat Talib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Xusay voilà euh, dégg ngeen bin la wax bin maanaam sénégalais yi duñu ay jaay danoo jàng diine moom dañ koy sàkku di ko xam-xam di ko xam saa su nekk diine ndax li jiitu ci am njàng mooy xam sa diine d'abord ba pare bu ko defee nag leneen loo jàng rek day fekk sam njàng bënn na ndax alxuraan mooy ndey téere yi boo ko jàngee leneen lu ñëw rek da dafay mel ni am ndox voilà jàng nag nasaraan jóge fa bëgg a jàng alxuraan wala ngay ñëw di waaraate loolu dafay difficile voilà loolu ñu farlu dëgg ñoo ko man waaye rek bëgg ngaa dellu siwaat waat xamoo nooy dellu siwaate waaye sénégalais yi duñ la ci bàyyi nekkal ci rythme ba nga nekkoon nag bin bii nag bu fekkee da am ab livre boo war a génn di ko ci def ba nga supprimer ko du génn de parce que Sénégal ay jaayil newuñu fi waaw du bin xoolaat ko bu baax yëraat ko dañ naan yëraatal téere yi du binde bu ko dugal ci sa téere bi nag voilà diine doxewul noonu diine moom du loo xam dangay ngay fortaate ñëw rek dugal déedéet dañ koy jàngi ba mu leer wala nga dem gëstu ko ba mu leer naññ wala parce que sénégalais yi yaakaar naa ne moom xamul luñ xamul waaye seen diine moom bokk ci dañ koy xamlu bu baax a baax a baax a baax voilà loolu moom bàyyi ci xel bu baax a baax moo tax sa biin xamul foo dugal ci TikTok bi rek nga xool sa bopp foofu noonu nga xam ne sénégalais yi moom yow rek lañ yàkkamte mënatoo leen a wax lu leen saf voilà da ngeen doon caaxaan rek voilà euh, xam naa ne leen naan mag du caaxaan war ngaa xam ne mag du caaxaan ndax jàppoon nga ne boo ko génnee moom la waaye yaakaar naa ne gars yi moom loolu la ci bàyyi kat sama gars yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jox dig daje ba ci kanam.